association des boulangers bu Touba doon amal am daje ngir wax ci jafe-jafe yi nga xam ne ni ñoo ngi koy jànkoonteel seen wàllub liggéey jafe-jafe yooyu ñu joxan ci baaraam jëriñ ji commerce bi. ma xam ne si tëj dañu dund ay jafe-jafe yu métti métti métti te dara waral ko lu dul euh, acte bu dëng gis nañ ne saa su ne ay réunion dem nañ plus de cent soixante dix réunion ak ministère du commerce. mais li ñuy dig lépp gisuñu ci dara chaque jour day teg dara taal bi buñ demee non changement tegaat leneen moom ministère du commerce ak ay agents assermentés su ma waxee agent assermenté yaakaar ñëpp a mooy ñoo ñoo xool ba gis ni mburu mi euh, ak homologation bi nga xam ne moom la tombé woon mburu mi war na jël cent quatre-vingts mais bi pour mu am nag foofu la problème bi nekk parce que pour lëre askan wi moo tax boobu léegi ñu di ko traîner naan mën a jàllale or que ñoom ñoo demoon ba gis ne mburu mi francs la war a ñun li ñuy réclamer métti mooy prix farine bi ñu méngoog li mburu di jar. ñoom defarkatu mburu yi ñaawlu nañ tam doxalin yi nga xam ne nii ñi di meññee yi ñoo koy doxal seen diggante ak ñoom. buy défendre boppam na wax ci en tant que meññ mais mën ko wax ci ci defar farine ba pare di wax ci defar mburu nit buy bëggee li muy wax mu tegu ci aw yoon ba pare tegu ci xam-xam te du tooñ kenn day yem fi mu tàmbalee am na fu mu yem keneen am na fu mu tàmbalee am na fu mu bi ñuy defar ñoom ñun ñoo liñ ciy daj ba mu doon mbir ñun ñoo ko xam mais moom xamu ko kon nayam ci farine bi cher na dañ ko war a yokk ñoo xam waaye buñ ko yokkee ba pare bu mu jéem a accompagner nag nan na ci li nga xam ne nag moo gën a doon seen bëgg-bëgg moo di njëgu mburu mi nga xam ne ni jamono yi wax nañ ne liñ koy jaay dafa néew lool ba tax na heure bu état bu Sénégal yokkee njëgu farine bi ñoom itam danañ yokk njëgu mburu mi. mburu mi dañu xam ne farine bi su yokkee un mburu moom dafay yokk obligatoirement décret bi yokk fëriñ moom moo war a yokk mburu parce que bu fëriñ mburu fëriñ la koy defar te mënuñu yokk mburu ba pare te tudd ñu mënuñu yokk fëriñ te tudd ñu kon donc fëriñ bi bu yokkoo mburu dafa war a yokk obligatoirement loolu la ñuy réclamer ci kanamu askan yëpp xamal population bi yëpp ne ñun jóguñu ngir teg population bi fitna mais nañ xam ne ñoom nañ xam ne ñun ñii ci fitna parce que depuis des années état mi dig dig nañu fi lu ne lam ñu fi dig dara amu ci ay politique rek ak ay naxsaay loolu nag ci lañ sol sonn ci lañ doy li ñu bëgg mooy nañ ñu jox li nga xam ne moom la moom muy prix bi nga xam ne moom la ñu war a jox. 180 francs la ñu gisoon à l'époque depuis 2019 bu mburu mi yokkaatee mais nañ ànd ak moom ni mu war a jar mu jar ko. ay at ngi nii ñu dégg co di mburu mi diggante meññe yi ak boulanger yi ak état du Sénégal. ñii di meññee nag ñoom bëgguñ leen lu dul ñu wàññi njëgu fëriñ bi boulanger yi ne fanweer yi nga xam ne ni moom li ñuy jaayee mburu mi jamono yi ñu toll dafa néew loolu ñu ci ñoom dañoo dem ba sax seen bërëb liggéeyukaay ba tax na ñu sàkku ci nguuru Sénégal yóbbu ko ba ju fanweer ak juróom benn lii artu nañ ci jëwriñ ñi nga xam ne ñu moo yor wàllu commerce bi da wax nañ ne bu fekk ne defuñ ko danañ dem ba ci fan yi ñu dëgmal ay bis yoo xam ne nii mburu kenn du ko lakk ci biir réewum Sénégal